kon encore une fois ñun amul dara lu ñuy contre Karim bokk wala Khalifa bokk suñu leader li mas a prôné mooy élection yoo xamante ne ci ñëpp bokk ki nga xamante ne moo yàgg ragal wujj mooy président Macky Sall ni moom lañ fi teg di ko giñ di ko giñ di dafa corrompe ay siis loolu jàpp naa ne dama ciy rus ndax barki démb gis naa bi ñuy def fii débat bi ku ci mel ne soxna Aïssatou Sow Diawara di suñu yaay taxaw fii ne élection yi kenn du ko dàq ci 24 heures dañu changé position lii moo ne woon yan mag lañ am ci Sénégal il faut que ñu xam ne ku sa avenir dem ku sa avenir jeex da ngaa war a dem bàyyi xale yi xale yi méritoon nañ leneen lu di Sénégal bi ñuy dund kon maa ngi daaneel samay kàddu foofu daal te xam ne élection yi ñun d'accord ñu dàq ko liñ sàkku mooy ñu ubbi élection yoo xamante ni ku ci bëgg a bokk da nga ciy bokk te élection ko wees na ndax loi bi nga xamante ni moo war a kii élection yi def nañ ko te dépassé nañ ci ay milliards kon foofu laay daaneel samay kàddu wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu jërëjëf merci cher collègue la parole à notre collègue Moussa Diakhaté merci merci président yaakaar naa ni ñoom buñ mënee ànd ak Mimi Touré mën a ànd ak Thierno Alassane